ñu won la laxbariyu li mu ne wa yukrahu taawudu walbasmalatu fi lfaridati li mu ne sib nañu aaudu billahi min alcheytaani arrajim ak bismillahi arrahmani irrahim ci julli farata ñu sukkandiku ci bëgg koo jamee Cheikh na Ahmad Tijani fekk kii wax loolu benn téere la jàng muy boobu am Cheikh Alxaaj Malik ubbee ci ni ngërum Malik ñeenti position moo ci am ci bismillahi rahmaani rahim ñenn ñi dañ koo sib xanaa mooy bi ci lax dëri ñenn ñi dañ koo daganal mooy ba ca Mughni ñenn ñi dañ koo sopp moo ne ci Kaaseroni ñenn ñi dañ koo waral moo nekk ci alfiqhu ala almadahib al arbaa nga seet nag lu ñu sib ak lu dagan ak lu ñu sopp ak lu war xam nga lu war moom ku ko bàyyi def ay lu ñu sopp ëpp naa ba lu ñu dagan mën nañ ko def lu ñu sib foo ci jële bakkaar dagan gi ak sibeel bi war gi ak cofeel bi ko ëpp doole cheikh alxaaji maay tënk ko ni karahatun ibahatun nadbun wujub madhabu malikin xawaaha ya xabib moo tax ku bokk ci tariqa cheikh na ahmad tijani fokk nga ubbi ko bismillahi rahmani rahim charte la ci tariqa bi ñeenteelu charte bi moo di an yatma inna fi rukuci wa sujudi bi qadri qawlihi subhana rabbi alazimi thalathan boo rukooyee wala nga sujjóot da nga dal ca rukoo ba ak sujjóot ba ba mën faa wax ñetti subhana rabbi alazimi wala subhana rabbi al ala cheikh alxaaji malik ni ku mu la wóor ne soo royee ci moom doo am ñett ya bul roy ci gannaawam wala tusalli xalfa man laa yaati qadra salaati muddat alxayaati am na ñoo xam ne bu ñuy julli dañuy mel ne ganaar guy for tepp tepp rek këlëb këlëb këlëb këlëb këlëb këlëb bu dee ñeme ñeme wala tudd dañuy xëy doxi soxla leb tisbaar leb takkusaan leb timis leb geewe bu ñëwee gàppariku di ko fay te bu julli bu ñu sëlmal nag ñu tafar laa ma ni waa yéen ku leen lebal ba ngeen di leb Sidi Aboubacar mu ne amoon na benn góor bu bari fulla ne moom bu xëyee suba ne balaa liggéey ne day boole waxtu yépp julli leen ci suba gi ne su ko defee nag
nee na nee na booba amul woon jot ne booba amul woon jot ne bi mu amee jot nag bu deux heures mu julli bu subaa mu julli waaye bu jëkk moom daf daan boole yépp rek
ñaa ngi koy def ba léegi nag nee na nit ñaa ngi koy def nag ba léegi rek di boole yépp rek ba ndogu ba noppi rek door ko def xanaa ci koor gi la juróomeelu charte bi ci tariqa bi ci shurutul kamal moo di an yatahajjada walaw bi rakaatayni naafila guddi doonte ñaari rakaa la waaw ci chartu tariqa bi la bokk naafila guddi doonte ñaari rakaa la tegtal bi ci alquran yàlla moo ni yonent bi wa min alleyli fa tahajjat bihi naafilatan laka asa an yabasaka rabbuka maqaaman mahmuuda am nga maqaama bu ñuy wax maqaamul mahmuud yow yonent bi danaa la ko jox ëllëg waaye pour nga mérité ko nag del naa fi la guddi Cheikh na Ahmad Tidiane ne comme buñ ko joxee maqaama ba liwaawul xamdi cay topp te dañuy toog ca ker ga nañu naa fi la nag guddi doonte ñaar rakaa la waaw tahajjud naa fi la nag kuy regg reer manu ko waaw bàyyi sëñ fàllu nee na suur këll këlañ rek suur këll nee na këll moom këlañ rek ni mu ne daam yaa bare njëriñ it am na lu mu ci wax mais li ci daam wax nag ñemewu ko wax kon de duñ ko ñeme ñun gis nga Cheikh na Ahmed Tidiane daf daan sàmm alquran ak sunna xeetu sàmm boo xam ne boo ko waxee nit ñi saa ñu daw ci la fi toog na benn waay ñëw ci moom ni ko yaa sayidi ana laa aqdiru an aquuma qabla al fajr yow sama sang mu ne mu ne ko man mënumaay yeewu lu jëkk fajar foo ko fajar jot rek ma door a yeewu wa qaala lahu anta rajulun laa tasluxu li tariqatina fatruk subhatana anka cheikh ni ko kon andi sama kurus yow mënoo bokk ci sama tariqa sama tariqa ku dul yow jëkk fajar mënoo cee bokk ah cheikh ay wax de waa ji dafa ñëw ci cheikh na ahmed tijani ni ko man mënumaa yeewu lu jëkk fajar fokk fajar jot ma door a yeewu cheikh ni ko mënoo defaroo ci sama tariqa indi sama kurus indi sama kurus fatlub anka subhatana ah xamoo naa fi la guddi yonent bi nee na rakaataani yarkaahuma bnu aadama fi jawfi leyl al axir xayrun min addunia wa ma fiha lawla an ashuqa ala ummati la faradtuhuma alayhim ñaari rakaa yoo julli ci digg guddi yow kott ci sa biir néeg yonent bi nee na moo gën àdduna ak li ci biiram su ma bañul woon sama xeet wi am tiis ma farataal ko ci ñoom cheikh daf ko charte moom ci tariqa bi mooy juróomeelu charte bi ci ñaar fukki charte kamaal yi ma bëgg a wax juróom benneel bi moo di an yulaazima rawatib bil faraidi naa fi la ñaari rakka wala ñeent jëkk tisbaar ñaari rakka wala ñeent gannaaw tisbaar ñaari rakkaay jëkk takkusaan ñaari rakkaay jëkk timis yooyu toftaloo ci booy bëgg a julli wala soo jullee ba pare ci waxtu yi dagana naafila charte la ci tariqa bi gannaaw timis bu dee gannaaw timis sax ñaari rakkaay ca topp ku bokk ca tariqa bi te mu faat la da nga ko fay waaw cheikh alhaaj malik nee na yaa saaxi in faatatka rakatayn bu ayda maghribin bila buhtaani faltaqra an yaqutat alfarida xamsina nilta rutaban adida nee na juróom fukki salaatul fatiha nga koy fayee dem ci tariqa bi nga bokk Cheikh Alhaj Malik moo ko wax juróom-ñaareelu charte bi moo di an yakuna sadiqan fi aqwalihi gayru kadibin fi cheyin nee na yow mi bëgg bokk ci tariqa bi sa charte la looy waxati mu nekk dëgg ab tiijaan du fen ab tiijaan du fen charte la ci tariqa bi kon mën ngaa natt tiijaan yi yi Cheikh na Ahmed Tiijaan yi nangul yonent bi nangul leen ci wax dëgg waaye koo xam ni loo wax ñu ne waxam julliwul te nga ne ci tariqa bi bokkuloo yàlla moo wax ci alquran ne yaa ayuha alladina amanu ttaqu llah wa kunu maa sadiqin yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla na ngeen ragal yàlla te ngeen ànd ak ñu dëggu ñi tey wax dëgg tey def dëgg te yor melokaanu dëgg pour wan la dëgg am gi mu am solo ci dundu nit benn waaye dafa ñëw ci sayiduna muhammad ni ko man day dama bëgg a tuub waaye nag lenn moo yàq tuub gi dama dégg ne da ngay tere sàngara ma dégg it ni da ngay tere njaaloo ma dégg it ni da ngay tere sàcc te yooyu moom dafa neex ci man mënuma koo baax alali jaambur moom fu ma ko romb dugal ci sama poche laa ci xam jigéen juy takk jaaro fu ma ko romb teg loxo laa xam sàngara fu ma ko romb màndi laa ci xam soo ma warlulee nag may ma ma tuub te bàyyi ci benn ma tuub yonent bi ne ko utrukil kaziba ñett yi mu ne mënu ko bàyyi tudd ko ko sax daf ko ne bàyyil fen rek fexeel ba bàyyi fen waa ji ne fen kot mu ne ko waaw fexeel ba bàyyi fen rek waa ji ne kon wëllërente naag yow dootuma fen génn rek fi mu waxante yonent bi benn waaye dogale ko ni ko maa ngi lay wër démb ba léegi kii dam saanu sàngar la yow laa ko dencaloon mu ne ah su ma naanee mandi de yonent bi laaj ma ni ma ndax dangaa mandi ma ne waaw daf may caw te bu ma ne déedéet fen man duma mën a naan kon yóbbul sa sàngara romb alali jaamur ba ko jël ni ko jakk ni ah bu ñu ma jàppee yonent bi ni ma ndax da nga doon sàcc ma ne déedéet dinaa fen te bu ma nee waaw waaw mu dagg sama loxo naa fi bàyyi yëfi jaambur niki noonu romb ku mu mën a àndal mu ne su ma àndeek moom yonent bi laaj ma ni ma ndax da nga njaaloo ma ni ko waawaaw mu caw ma te su ma nee déedéet fen noonu la bàyyee ma yàlla yépp daal di ñëw ci yonent bi ni ko jikko ji nga ma tere mu ne ah mu ni ko ndeke mooy yées ci jikko yi mu di fen moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko ni ko ndax julit dana njaaloo mu ni mën na ko def ak ni mu xaraame ñu ne ko ndax julit dana naan sàngara mu ni mën na nekk ñu ne ko ndax julit dana sàcc mu ne mën na nekk ñu ne ko ndax julit dana fen mu ne déedéet julit moom du fen waaw am na benn téere bu ñuy wax alfu layla wa layla téere baa nga tudd junniy guddeeg benn nettali na ci benn nettali bu yéeme nee na dafa am benn waaye bu am jaamam di ko jaay ñu ne ko luy sikkas jaam bi mu ne amul benn sikk xanaa mën a fen rek ñu ne ko fen da amul solo waaw buur bi ne ko fen amul solo jaay ma daal di jënd jaam ba dem ba yàgg rek jaam ba ñëw ni ko buur mu ne ah mu ni ko am na lu xew de man comme yaay sama sang lu la dal dal ma yëg naa ne ñu ngi lay bëgg a coup d'état dëkk bi yépp jël nañu ay ngànnaay ñii ngi yori pikk ñi yori jaasi ñi yor peel ñi ngi toj ci sa palais bi mu ne ko lu ciy fexe mu ne ko nga wëkk waa quartier bi ñu song peuple bi fi buur bi defee loolu rek mu rocciku dem gis ay groupe ni leen palais buur ba daanu na ci kawam suux na jël leen pikk yi ak peel yi ak jaas yi ak marto yi pour ngeen sowee ju ko ñooñu gàddu pikk yi ak peel yi rek wuti palais ba buur ba seen ko ni dëgg la soldaar ya soqi ci seen kaw ñépp dee waaja taxaw ca tund wa ni genn wàllu fen waangu noonu bu déwénee ma en mottali ko ma ni ko foo koy fekk jërë ngeen jëf kon fenn ngoog Cheikh na Ahmed Tidiane nee na ku nekk ci tariqa bi charte la ci yow pour nga bàyyi fen kii kay bu ñu daaneelee nga xam ne tariqa bi luñ ci diggee lu ko ëpp nga ci xoolal yim tëral yépp juróom-ñetteelu charte bi moo di an yaburra walidayhi li annahuma sababu lwahid fi inshaai l insan wa wujudihi fi dunya ki nekk ci tariqa bi dafay baax ci ñaari way juróom respecté leen fonk leen nooy ci seen kanam xormal leen yëg leen wayaf ci seen kanam wala taqul lahuma uffin waaw baat bu gàtte na ëf bu ko wax sa baay bu ko wax sa yaay gis naa ci benn ci téere tariqa bi mu wax ni sax sopp ñu ku ne ci tariqa bi bokk ak sa yaay ak sa baay di lekk waaw mu ne sopp ñu ko de te indi na ca lay wu fees xel parce que nee na mën nga bokk ak sa yaay ak sa baay te li ngeen di lekk yàpp la góor gi wala soxna si seen benn daggu yàpp fekk yëkkati na ci voyage bi bay sax mu ne bu dellu see jël dagg bi nga jiitu ko ci te yëgoo ko mu ne lekk boobu ngay lekk xelam daf lay dog ci tariqa bi mu ne daf lay dog ci tariqa bi gis naa ko ci téere tariqa bi la gën mooy nga taaj leen ñu lekk ba desal nga lekk seen desit baax ci sa ñaari wayjur charte la ci tariqa bi wa qada rabuka an laa taabudu illa iyahu wa bilwalidayni ixsanan yàlla nee na nañ ma jaamu man kenn képp waaye nañu teral ñaari wayjur wa abudu llah wala tushriku bi cheyan wa bilwalidayni ixsanan yonent bi ni wa anna aljannata taxta aqdaami al ummahat aljanna yàlla nga ko def ci sa ndëggu ñaari wayjur waaye rawatina sa yaay moo tax limaam shafii radiallahu anhu mas na ci def mbir mu yéeme nit ñi dañ defee ni muhaadaraat yi conférence yi ñuy def ni léegi la xew déedéet xewoon na boo demee ci diwaanu shafii nee na shafii daan na def conférence nii ñu koy defee lañ ko daawul defee nee na mas nañ ko invité conférence moom shafii muy dem di tàggu yaayam yaayam ni ko wokkal ma sama tànk muy wokk tànk bi mu ne ko kontaan naa ci wokk bi Shaafi'i yi nekk fa ba waxtu conférence ba jeex ñam waroon conférence la ñëw attaqué ko ni ko naafeq nga mu ne lu ma def ñu ne ko fausé nga rendez-vous te ayatul munafiqi salaasa ida xaddasa kadaba wa ida waada axlafa wa ida tumina xaan fausé nga rendez-vous te ci mandarga naafeq la mu ne man da dama jëm si ci conférence bi tàggu sama yaay mu ne naa ko wokkal tànkam ma di ko wokkal tànkam mu wan ni ma bég na ci te yonent bi moo ne aljanna mi ngi ci sa suufu ndëggu yaay du ma romb aljanna nag di wuti aljanna ñu ne ko lii doy na conférence gis naa ko ci diwaanu chef yaay ah kon waxtu yi ñëw na ñu joxe ko te ñëw commencé conférence bi incha allah
فضلا أتينا من سما أصلا فما أتينا من سما أصلا أو قصدنا من سما فضلا أتينا من سما أصلا قصدنا ما سما أو أو قصدنا ما سما فضلا أتينا من سما أصلا قصدنا ما سما يا حملا أعطينا ما قد دفلني قصدنا ما سما بدل أتينا من سبا أصلا أيوة ما خلف بين حميدنا الله مولانا وعنا قد نفى جهلا فضلا بين أتينا خلفا بين جفا مولاي شيخي من ألا يحمله شملا ألف بابا كرني أتينا من طبع قد دفلني لنا فوز لنا غن بسيمي مرحبا سهلا ألف بابا كرني بسامي مرحبا تلبس شيخ دفلني وأنتم يا أحبائي
فالهدى بالقراء أهلا
خلينا بين بحقيق ما بي نطق فحقيق ما جرى بعلا فوز لحاق ما غبا خلما بين فإن يرسل قول فممن بي فممن قد نبى مثل أوصال أدبار دار ممن بي كلمة شيخ دفلني بإن يعزال قول بينه فممن بي فممن قد نبى مثلا أنا يقتال فممن بي فممن أوا فأنتم يا أحبائي فياضوا بالقراء ألا فإن يعزال قول فممن بي فممن قد نفى مثلا فأنتم يا أحبائي بالقرار أنا بعيد يزال مو قاعد يدفلني ممن بي أنا وامر أو فأنتم يا أحبائي فلاذوا بالقراء ألا فإن يزال قول فممن بي فممن قد نفى مثلا بعدهم يا أحبائي فلاذوا بالقراء ألا فإن يغتال قول ممن بي ممن قد نبى مثلا ووا وصلى الله مولانا على الهادي سما فضلا
صلى الله مولانا وعنا في سماء قد يدفنني وآلي بل آل بل وأصحاب أيوة من سار ليلى
آل بل وآل بل أصحاب من من سالب شيخ دفلني وآل بل وأصحاب الواد من ترى ليلى وآل بل وآل بل بل ويبوب جولت الأنب وفاق كنت كالي ولا شيخ شريف ندوما والله والله بويا بوبا وليت لمي وفاف كنت كالي ولا شيخ شريف ندوما لمي وفاف كنت كالي ولا يو شريف والله بويا بوبا وليت لمي وفاف كنت كالي ولا يو شريف ندوما والله يندم سن الخي ngay ca kaw soo yaboo ba ñëwaleeti lambi waa faat kenn te kaalewu laa yow shérif nga doomaat awala barzaq mektoom boo yaboo ba ñëwaleeti lambi waa faat kenn te kaalewu laa yow shérif nga doomaat sani loxo yi ca kaw soo yaboo ba ñëwaleeti lambi waa faat kenn te kaalewu laa yow shérif nga doomaat awala barzaqul maktub soo yaboo ba ñëwaleeti lambi waa faat kenn tëkkaale wu laa yow shérif nga dooma soo yaboo ba ñëwaleeti lambi waa faat kenn tëkkaale wu laa taaliba cheikh loxo ca kaw soo yaboo ba ñëwaleeti lambi waa faat kenn tëkkaale wu laa yow shérif nga dooma wallaay xarit lelu taxawal seetlu gent bi tuut bi gis rek yi fi woon sopp yooya woon woo
ak wax itam ku bokk ci tariqa Cheikh na Ahmed Tijani cofeelu Cheikh na Ahmed Tijani ak cofeelu sëriñ bi la may werd dafay sax ci sa xol du ca génn du ca génn ba nga deewaale ko ku mu la wóor ni ki bañ na cheikh bu royati ci moom julli ku mu la wóor ni noonu cheikh na ahmed tijaani la sa noonu sëriñ la te noonu nga tegul ko fenn lu dul ci bakkanam bu royati ci moom julli xam nga lu tax cheikh na ahmed tijaani ku ko noonu yàlla déclaré na la guerre ku yàllay guerre amatoo julli man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb sunu borom tabaraka wa taala moo wax ci xadisul quds ni ku noonu sama benn waliyu man déclaré naa la guerre man yàlla yàlla ku muy guerre nangootul sa julli te loolu waxin la ne yàlla du fi nekk di guerre da lay alak rek mu sotti guerre ku moomul yëf ya koy def kon cofeelu sëriñ bi sax ci sa xol ba nga deewaale ko ci charte tariqa bi la bokk mooy juróom-ñeenteelu charte bi téere yi dañu wax ni sax loo gën a sopp sa sëriñ ngir jëmm yàlla leer gën a tasaaroo ci sa xol ndax dañoo firi baatu mahabbatu ñu ne mahabbatu ñetti xaraf la wala ñeent ñu ne miim bu jëkk bi ci mahabbatu mushtaqun min almamaati ñu ne walxaau mushtaqun min alxayaati walbaau mushtaqun min albalaai walhaau mushtaqun min alxanaai ñu ne miimu mahabbatu bii firi cofeel ñi ngi ko xare ci mamaatuy dee xaalonk bi ñu xare ko ci xayaatuy dund baa bi ñu xare ko ci balaa uy nattu ha kabir bi ñu xare ko ci hana uy mbégte ñu ne loolu luñ ci mën a xamee ñu ne noon ki nga sopp deem mooy sa dee dundam mooy sa dund nattoom mooy sa nattu mbégteem mooy sa mbégte waaye sopp naa nit ki te bu bégee nga mer bu meree nga bég bu amee nattu ngay saatagaay bu kontaanee nga mer booba yaa ngi ca safaan ba nit ku ko sopp su amee teraanga nga yéene ko ko rawatina nag koo xam ni moo dox sa digganteeg yàlla di la tette nga mel ni liir buy jàng dox mu di la won yoon wi kon sa cofeelu sëriñ sax ci sa xol charte la fukkeelu charte bi moo di an yaxtarima kulla man yantasibu li cheikh wala siyama alkibaar min ahli tariqati képp kuy askanoo sa sëriñ moo xam da koo jur moo xam da koo denc moo xam da koo yar moo xam doomu doomam la jum doomoo moo xam xaritam la nga xormaal ko ngir jëmm yàlla xormaal ko ngir jëmmi sëriñ bi waaye bëgg naa sëriñ mbay Mansour te bëgguloo kennam ah du wér nag ci tariqa bi charte la ci tariqa Cheikh na Ahmad Tidiane kooku nag la mag ñi daan firi ba xóotal ko naan sa fasu sëriñ sa sëriñ la ma ne xaw naa ëpp nag bu ko jaayee jaay sa sëriñ kon fukkil bi ak benn moo di an laa yuda axaahu fi tariqati faqad jaa an sayidi ahmad tijani radi allahu anhu idayatu ahli hadihi tariqa idayatun lahu sal allahu alayhi wa sallam bokk na ci charte tariqa bi bul lor sa mbokk moo bokkal tariqa bi bul lorit sa mbokk julit xam nga lu tax ñu jagleel ki nga bokkal tariqa bi ni bul ko lor taw góor xam nga loolu tax ñu ne la bul lor ñi nga bokkal tariqa bi jëkk leen a tudd jagleel leen nga bañ leen a lor ñaari réew yu yépp am ngànnaay bu ñu xeexee tukkal àddina Amérique ak Russie am na jamono bu ñu xeexoon faagaagal monde bi taalibe tijaan boo gis yor na kënu taalibe tijaan boo gis yor na kënu moo tax boo ko loree fetal nga ci kawam bu fetalee ci sa kaw àdduna tukki